oui effectivement maa ngi remercier si euh, invitation bi pour euh, joxe sama euh, intervention par rapport ak situation dëkk bi surtout ak interpellation bi ñu bëgg a def Ousmane Sonko ak aussi manipulation ak complot bi ñu teg ci ndoddam may wax ne ce n'est la continuité n'est-ce pas de Macky de la personne de Macky parce que bi mu jëlee réew mi lu mu njëkk wax mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression depuis boobu nag ci entreprise boobu la nekk et ce qui donnait Karim Meïssa Wade les gens ont dit que ça ne le concernait pas mu liquidé Khalifa Babacar Sall les gens disaient que ça ne le concernait pas cette fois-ci c'est au tour de Ousmane Sonko mais ceux qui ne réagissent pas ne savent pas que c'est pas la personne de Ousmane Sonko de Karim Wade ou bien de Khalifa Sall qui est important, mais c'est notre démocratie, c'est la stabilité de notre pays, c'est l'état de droit qui est en jeu. Parce que ma Sall acte yi muy posé yëpp c'est pour instaurer une dictature. Et je dis hautement que le monde n'est pas détruit par ceux qui font du mal, mais plutôt par ceux qui veulent faire s'emporter agir. Non seulement li ñu Thomas Ousmane Sonko président Sonko ay complot la manipulation la ay la mais en plus de ça ñu bokk ko interpeller en foulant au pied les règles élémentaires de droit parce que ku ne xam na ne un député bénéficie d'une immunité parlementaire boo xam ne article 61 de la constitution du Sénégal moo consacré ak l'article 58 de la loi organique de l'Assemblée nationale du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en se de toutes ces en, foulant toutes ces règles ñu ñëw maintenant bëgg Dieu par la force et di joxe instruction ñu tirer ci des militants qui sont venus tout simplement manifester leur sympathie et leur solidarité à leur leader politique donc nous disons maintenant que trop c'est trop et cette forfaiture ne passera pas et le président Macky Sall n'a qu'à prendre ses responsabilités la stabilité du pays est en jeu et c'est lui le seul responsable donc si arrête Ousmane Sonko il va arrêter des milliers et des milliers d'Ousmane Sonko j'ai le cœur meurtri. Quand je vois que nous, nous en à ce niveau de bassesse dans notre démocratie et dans notre pays dëkk boo xam ne dëkk jom la dëkk ngor dëkk fit ñuy dem juste pour des fins politiciennes di jéem a tuumaal nit ci loo xam ne janul maanaam xel sax nangu ko pour jéem manipuler la justice pour arriver à des fins politiques mais encore une fois